waa cadre d'action pour le développement da koy ñoom amalal nañu bëccëg goo xamante ne nii dañuy neexal élèves yi nga xamante nii ñoo gën a ràññeeku ci commune bu Ngoy. ci jàng ñu gis que ne xarañ nañ sur la base résultats yi nga xam ne ñoom lañ am ci composition yi ak bac yi. parce que on a i sax dañ primé ay xale yi nga xam ne terminale lañ doon def mais ils sont en première année de l'université. ñu jàpp ne euh, mérite ku nekk am excellence nag dafa war a ak li ñuy wax équité. parce que nit ku mu mën di nekk boo ko joxee tege ci condition yu baax rek mu excellent ñun loolu lañ comprendre moo tax ñu ratisser large jéem a jël xale yëpp. bi tey nekk inspecteur fii ci Bambey moom mi xam xamle rek ne journée yi lu am sol la te mi ngi wooy tamit jigéen ñi ñu gën a góorgóorlu science yi jigéen ñi matières yooyu nga xam ne def mooy matière scientifique nga xam ne mooy tax ñu mën a suqali réew mi suqali gox yi ndax mooy tax eh, xale bi mën a nekk ingénieur mooy tax xale bi ma a nekk borom xam-xam boo xam ne day gëstu ci liy doxal réew mi ci wàllu suuf wàllu euh, yeneen yu bare bare bare ak wàllu pétrole ak yu mel dégg nga ak wàllu technique. loolu bu amulee réew mi day jëm dellu ginnaaw dañu gis ne góor ñi ñoo ko gën di taxaw. Ali Pouy nekk élève boo xamante nii moom bokk na ci ñi nga xamante nii ñooñ lañ doon neexal mu ngi woo moromu élève bi ñu gën a góorgóorlu ci njàng mi. daa loo xam ne dañuy soñaat ñun élèves yi. te buñu ñu élève nak moy képp ko xamné nga ngay sakku xam-xam te li ñu def ni lu jëjju wat la lu luñu soñat la it pour ñu dina fonk lu ñuy def te it du jox nañ ma ren rek waruñ ma jox den wala ne waa cadre d'action pour développement ngoy nak ñi ngi wo ñi nga xamne ñoo di parents d'élèves suñu premier ti seen dom yi ñu ndax ndaxte lool doon na lo xamante ni lu baax lay doon ci ñom